secteur privé va lui dire. Ah non <coughs> c'est pas la je sais bien que ça n'a rien ah, rien à voir. Charles ma Charles ma dans l'affaire de de la Grèce. dans l'affaire de de la Grèce c'est-à-dire que encore une fois je suis désolé en grand yi ngeen baal ma mais fi li ngeen di wax ba CEDEAO du syndicat de chefs d'État yoo xam ku nekk chacun protège l'autre ak civil ak ay hommes politiques véreux yoo xamante ni dans ba pare qu'on qu arrête d'utiliser le jargon technique le jargon utilisé par les médias occidentaux ay jeunes la ñuy wax. ay on a les mêmes éléments de langage ñun bu ñuy réfléchir non. même élément de langage. mais ce mais sont une armée tu l'appellerais comment au Sénégal. non non si tu mais... l'appelles pas une armée tu l'appellerais comment. non non c'est c'est un politique tu l'appellerais comment. mais qu'un politique mais, au Sénégal une jeune tu l'appelles. je je sens mais li ma bëgg a wax mooy. je sens tu sais, une condescendance. Pape Djibril la représentativité on... africaine sénégalaise à laquelle tu envoies. tu, tu, tu, que tu revendiques. Je ne la revendique pas, j'en suis l'expression. c'est-à-dire man lu ma paas loolu paase naa ko. c'est-à-dire j'en suis l'expression. c'est-à-dire man aw ma problème tubaab bu toogee damay lakk ak moom tubaab. bu dee tubaab français ma defante ko ak moom bu dee anglais ma defa bu dee sénégalais amuma problème. mais Charles Charles la CEDEAO non non non non je finis juste avec l'exemple de la Grèce à l'Union européenne. dama exemple Grèce. exemple Grèce dama koy jox par léegi liy dëggal Pape Djibril Tchad loolu du coup d'état France Macron mais mais cette décision là France la jógee boppam France la jógee boppam Macron est content de ses amis. boobu da kontaan parce que moo installé boppam doomu Idriss Déby li muy bañ.